y a un fait d'actualité c'est que Idrissa Seck euh, bu ko waxul officiellement euh, il matérialise sa volonté euh, de briguer euh, la magistrature suprême euh, tey dans un message très imagé nee na sénégalais yi ndax d'accord nañu Euh, nee na Macky Sall indi na fi Coupe d'Afrique est-ce que sénégalais yi euh, dinañu d'accord euh, gunge ko mu indi leen li nga xam ne moom mooy Coupe du monde réformer l'éducation lutter contre les changements climatiques et cetera et cetera mu nan d'abord nan ngay nan nga ressentir ces actes posés depuis quelque temps par le par le président de de de de de Rewmi. bon man j'ai pas une analyse particulière dama jàpp Idriss Seck un haut responsable. dans ce pays qui a son parti et qui est souverain dans sa démarche. mais c'est votre allié. waaw mais qui souverain dans sa démarche. il reste ah. que même bu nekk allié il a quand même sa personnalité. Mm-hmm. il est libre de prendre les positions qu'il voudra. le moment venu quand il prendra une position nous aussi. nous aviserons damay jàpp ne rek position bu mu war a mën a am am na ci liberté te man am na respect ci Idrissa Seck pour ne pas may interpréter lu mu xalaat ak lu muy bëgg lu mu bëgg ak li muy xalaat c'est sa personnalité waxtu bu mu ko jëlee responsabilité am ou bien ñun itam ñu xam ni ah fii lañ jëm ñu jël suñu responsabilité loolu suñu mbir mbirum bopp loolu laa doon wax mais dafa am antécédent ñu fi amoon euh, Idrissa Seck ba mu amee euh, conflit ak président Macky Sall décembre 2013 ou 2014 2013 mm, euh, alors Idrissa Seck bi rupture bi amee les ministres de yi nga xam ne ñoom ñoo nekk représenté woon réew mi dans le gouvernement muy Pape Diouf ak euh, Omar ñoom dañoo lâché Idrissa Seck aujourd'hui démb euh, dañoo yeewu suba teel avec un communiqué de réew Rewmi euh, ñu dessaisir Yankoba Diattara du poste de deuxième personnalité de réew mi teg fa ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Ndoye coordonnateur départemental bu Saint-Louis ñu gis ne boo moytul scénario boobu dina ñëwaat en tout cas en ce qui concerne ba jatara mën na en cas de rupture entre Macky Sall ak Idrissa Seck mu décider rester au gouvernement et d'ailleurs lui il fait partie des de de ceux euh, qui défendent euh, la troisième candidature. bon xam nga man je ne vais pas me permettre man di apprécier le fonctionnement d'un parti allié Idrissa Seck bu muy jël décision ne dafay dindi Yankhoba Diattara comme deuxième vice-président dafa ne en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement par le statut et le règlement de son parti de son parti. xaw ma les statuts et de son parti mais ce que je peux lu ma mën a wax mooy Yankhoba Diattara est engagé il est loyal. mais loyal à qui il doit loyauté à qui xam nga man lu ma mën a wax espace bi ñu bokk espace bi ñu bokk mooy gouvernement ci biir gouvernement Diattara mu ngi def liggéey bu rafet Diattara mu ngi am engagement ak détermination ci li muy def maintenant les positions politiques dans son parti ak moom ak digganteem Idrissa Seck c'est à eux de les régler pas à nous mais nous souhaitons en tout cas li ma souhaité mooy au vu de leur compagnonnage historique bi ñu am entre Diattara et rek Seck que ça ne puisse pas tomber comme ça comme eau de boudin et nous aussi compagnonnage bu ñu am ak Idriss Seck su doon suñu sago ñu préserver ko parce que dans des moments difficiles on a été ensemble lu koy mën a ñu ñun continuer nekk ensemble yàlla nañ ko yàlla dimbali mais à l'impossible nul n'est tenu si c'est impossible que chacun va